nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla écurie Fass la nekk di bay waaram nekk nag rakk ci Gris Bordeaux tey nag ñoom contentement nag bu baax a baax fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ni moom mooy làmb ak instant bi gis nañu réew mi ni muy doxee te moom ñëpp xam nañ ni macha allah xale la mais tamit porteur de voix la ndax nee naa leen su waxee rek ñëpp dañuy xam ni kii wax mooy loolu dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu. dégg ci lay ñu ngi lay fay di sant yàlla bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sant sunu ñaari waajur sant sunu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak euh, njabootu Seydi Hadj Malick yëpp di leen ziar di ziar waa Touba. Njaasaan Laayeen Ñaseen bépp kilifa diine rek bu nekk ci réew mi ñu ngi lay ziar di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan may la wér di ñaanal suñuy supporters yëpp di ñaanal suñu waajur bu jigéen yàlla guddal fanam may ko wér di nuyu waa ak bépp supporteru écurie Fass ak foo mënti nekk ci àdduna bi rek ñu ngi lay ziar di la nuyu. nuyoo bu am na solo Gris euh, dañuy tàbb ci li nga xam te moom mooy waxtaan bi. ñépp gis nañ ne instant bi fi làmb toll amoon nga combat sa combat ak ñantee moom mooy Abdou Diouf am na si loo jugee woon mais tey ah boo ñu doon wax waa wasaare làmb ñëpp xam nañ ni kenn dootul wax kan mooy Gris 2 Sénégalais yëpp xam nañ Gris 2 mais ñu doon wax sa parcours lan nga may wax. waaw Gris benn xale la rek bu juddoo Medina rue 19 angle 24 duggoon na école yaakaar naa ba sem sem waaw sem 1. demoon daara jàng fa ba yàlla dogal na mu yeggali àllu am ñëw am grand frère bu naan Gris Bordeaux di ko accompagner ba yàlla dogal ñu dugg ci làmp mhm. waaw bañ ci duggee ba léegi tamit def na dix combats def neuf victoire am ci benn defet mhm. di naan yàlla rek gri 2 daal en ah, en résumé Gris 2 mi ngi noonu mhm. waaw taalibe la mbër la taalibe la mu wër la wax nga ko da nga ñëw fekk sa frère bi bëri muy Gris Bordeaux ñu mhm. fekkoon yow nga nekkoon daara nga nekkoon daara après nga ñëw mais ba nga demee daara da ñëw ba nga ñëwee rek da dugg ci làmb wala da nga doon accompagner Gris Bordeaux non ba ñu ñëwee ñun de mosuñoo def suñu xel sax si bëri ba ma ñëwee daara sama mag bu jigéen maa ngi koy ziar sama sëriñ la sama mag la soxna na fi da doon jàngale alxuraan jàkkaay sëñ mhm. nekk xanaa ba giri di préparer Yékini ci laa commencé dem regroupement doon leen accompagner des fois nag gars yi foofu ambiance bi nga duggante gars yi ku si ne di la wax ñëwal ñëwal des ngay bëre gars yi duñ la mënal dara surtout ay Balla Diouf Boy Naar maa ngi fàttaliku mboppat bi ma njëkk def Boy Naar dafa ñëw indil ma blouson ne ma Moussa si moo teg fee trois cent mille écrit yëpp fay ñëw cinq écrit lañ fa woo écrit Manga Birahim Ndiaye Rock Énergie parcelle mbooloo ak waa Fass mooy ñi dëkk parcelle rek mu ne ma nag yow lañ bëgg nga ñëw jël bëre luur bi ma ne ko mukk boobu rus naa sax su meeku ci mbooloo. boobu mosoo bëri. boobu mosuma bëre. naa di ma topp ma bañ naa ñun nga yeb ñun nga yeb mënuluñ la dara te yaa ngi nii ragal say morom di ma ci forcer di ma ci forcer ba mu mujjee ñëkk dem. waaw le jour la maa ngi fàttaliku ba ma ñëwee foofu ànd ak ñoom bastafaa ñun ñëpp doon waroon bëre ñun ñëpp ci lañ bokkoon ne ay mbër ay Mamadou Ndiaye ak yooyu noonu dañ ma doon xool di reetaan Bastafa naan man ndeysaan fii ñëpp ngi lay xool di reetaan te xamuñu ne yaay jël lépp affaire yooyu boobu man dama rus ba ma ñëwee mënuma sax taxaw damay dem di làqatu di toog ci ay kii affaire yooyu ba yàlla dogal ma bët boobu nekk deux jours. ñu bëre fa cinq combats xaw ma. waaw bu ñun waa Fass ñun la woon man la woon André affaire yooyu ndax par catégorie la woon. mais plus de cent kilos bi. boobu laay ñoom mbor mu ngi jëloon dara chef de l'état ñoo daje final. Mhm. ma daan ko daan fa baabak ak Assane Faye affaire yooyu mbaru séeréer daal yu bëri foofu daje woon nañ fa yàlla dogal ma jël ko bañ jugee nag ci loolu nag confiance bi di gën a ñëw waaw supporters yi tamit ñu bëri. ñoo xamante ne di ma encouragé doon dem ba écurie Fass ñu bëri bu tasee sax wala booy boo ñëwul toog ay quelques jours sax ñëwoo sax nga gis nit ne la del ñëw maa lay jox paas del yi del lii ku ne di encouragé ba affaire yi ñëw. mais après ba nga jour ba nga njëkkee bëre daan ñoom ñëpp nga ñëw ci kër gi ñoom Gris Bordeaux wala sa famille ñoom lan lañ la wax après. waaw dañuy commencé parce que moom sama yaay moom musul sawar ci ma bëri affaire yooyu. ndox moom affaire yi ay ree rek la ko doon def doon woon yéen daal sama Maodo mii affaire yooyu di ngeen fexe rek ba kii affaire yooyu. Mhm. ñu commencé boobu ba ñëwee jël ko. du mhm. vraiment fàttali giri la la moo kon sax si saa yaa ngi commencé ñeme mbooloo affaire yooyu. Mhm. loolu la ma doon wax ñu ñëw Boy Naar tamit même sama licence sax Boy Naar moom toujours dama ko koy wax des fois mu ne ma bëri dafa xaraam bëri dafa xaraam mën ne ko yow man lu ma def ci bëri. yàlla yow la koy duma. parce que yaa ma ko forcé yaa ma nax yaa ma nax ba dugal ma ci parce que sama licence sax moo ko moo ko dem moo ko defar. moo fay moo ko defar sama premier combat moo ko lijjanti. Mhm. suñ Modou ñaa man a jaagar jaagar boobu. Mhm. moom moo ko dem lijjanti ji lépp. Mhm. waaw xam nga ñu ñëw tamit commencé bëre yàlla di ñu defal ndam chaque année ñuy bëre. waaw donc des combats yi mënul woon bëri parce que dañoo dugg ci làmb rek am difficulté combat. chaque année rek benn lañ doon am chance su am ko. yàlla dogal ñu koy gérer ba léegi. mais mbapat. waaw mbapat boobu ma la wax laa def. ak benn boo xamante ne euh, parcelle la woon maa ngi ci bëri woon pas Tyson 2 bii mais Tyson de la tuddoon. ñu bëree ndax bu ba ma bëree ci année boobu rek année prochaine bi dañoo. dañoo dugg ci kii mais tey mbapat bu ñu nekkoon environnement boo xamante ne day laaj mbapat xam naa ne tey bu démb doon tey quoi dinañ ko gën a dinañ ko gën a def parce que mbapat dafa compter ci environnement parce que man daanu moon ànd ak ay mbër man suma xarit yi ma doon àndal yoof ba may dool dugg ci làmb ñoom xamuñu woon luy làmb xam nga doo wax ci mbapat doo xam mbër entraînement face ngay dem ñëw ñëw bu ñu ngay nekkal ñëpp dunduñu làmb xamuñu sax làmb man maay tax ñuy dugg esaat man maay tax ñuy suivre làmb xam nga loolu doo mën a di bëre mbapat bu doon da ngay toog ak ay mbër wala di ànd ak ñoom dinañ ne fii am na lii fii am na lii ngay dund kii boobu man nag loolu moo gën a tax xam naa ne mbapat bëriwuma ko environnement bi ma nekkoon moom ma ko xañoon mais loo xamante ne lu am solo la ci mbër. boo xamante ne jamono boobu xam naa ne bu ma nekkoon ci benn environnement wala sama xel tollu fii dinaa ci mën a sori ndax jamono <laughs> boobu bu ñu bu ma ci yëngu woon tamit xam naa ne kilifa laa ji nekk. ndax parce que boobu nit ñi xam nañ ma maa ngi écurie Fass te écurie Fass trop trop trop <laughs> mais xamoon kii moom du mbër bu nit di fooye ci àdduna. Hmm, mais gars yi bari dañ ne li nekk rakku mbër. Mhm. wax tur bi xaw a kii moo tax tur bi xaw a jug tuuti. non waxuma sax ci ay waxu mbër waxuma sax si ay wóoru rakku mbër parce que ñun moom kon li ñuy wax rek fii moom bul sonn rakku mbër doomu mbër ak loo mënti doon boo amul capable boo pour def dara doo ko def. àdduna moom loolu existé wul ndax li ñuy wax mooy judd bu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda borom. te mag mënul fexe fexe fexe fexe fexe ba def la champion te mënu te yoroo yoroo lu la def champion. loolu moom mën nga ko wax nii rek mais loolu mënul nekk parce que gis nañ fi ay doomu mbër yu ñëw demuñu gis nañ fi ay rakku mbër yu ñëw demuñu ay yooni yoon nga gis mbër formé doomam ci boppam demul mu formé keneen kooku dem kon affaire yu du loolu affaire yu destin la yàlla moo koy def ci yow nga am loo mën ñëw loolu nga réussir ko. waaw ah, mais mën nañ la rakku Gris Bordeaux mais pour ñu ne Gris 2 loolu moom yow yaa ko mën a def waaw. na solo sa premier combat di def ak frappe nga dugg ci ban waaw c'est loolu 2014. xaw ma waaw 2014 daal. waaw temps yooyu la woon ndax juru Brésil yi Bazoka la woon. jur boobu laa njëkk bëre. Hmm. combat boobu noonu ñu gis ni nga ñëw ñëpp na rakku Gris Bordeaux. Mhm. ñu allah am na coow sax boo xam te ñu mhm. bari dëgg la ñëw pour découvrir booy bi. ah boobu ñu bëri xam nañ ma entraînement Fass parce que man ba may dooree ñëw Fass moom maa nekkoon sparring dama doon nekk sparring partenaire kuy bëree rek ku am combat rek waaye dañ naan la boo booy contact ak Maodo boo demee combat ba day yomb parce boobu mooy loolu quoi. waaw dafa doon dañ doon def foofu daal touche bu am importance waaw ci équipe bi boobu xam nga ku si nekk tamit ñi doon ñëw entraînement phase boobu xamoon nañ ma xamoon nañ ne kii nii tey bu demee yii nii yëpp muy bëree du du bisam waaw que man samay grand yi yëpp combat bu ma mës a am mosuma am combat bañ na ma am nga combat. Mm-hmm. waaw muy ñoom giri papa saw yi fa nekkoon ñoom ñëpp xam nga luñ ma daan wax yow ñi ngay bëreel waroo bëreek ñoom yàlla moo dogal ne booy dem. il faut nga jaar fii mais ñii ñëpp doo seen moroom ñun ñii ñun xam nañ la dañuy bëreeg yow xam nañ la waaw boo demee bul xaar dara waaw dangay daan giri loolu la ma doon wax man waxuma waxu daan ndax xam naa ne yaay daan mais avec la manière dama bëgg nga daan ñu xam ne kii nga doon bëreel yaa ko mën waaw moo taxoon ñu bëri bu ma doon bëree ñu gis ne duma tax taxaw damay ñëw rek avancer bëre dem parce que yow mën nga bañ a xam sa bopp mais ñi ngay nekkal. ñoom dinañ la xam. dinañ am lu ñu yaakaar ci yow quoi. sa mhm. combat yi damay combat yoo xam te ni il faut que ñu gis sa combat ak Owiss. Mhm. ñun mu nekkoon combat boo xam te ni sax ñu bari ndax yaa ngi koy wax parfois sax nit ñi duñu xalaatal Gris 2. dañ naan mën na bëre ñii ne parfois pois bi quoi. lañ doon mhm. wax ñii ne noonu moom moo ëpp doole mais ci côté bëre bi. ñu gis ne chance bi mooy que ni yaa presque ñi ngay bëree ñëpp da ngeen xaw a tolloo waaw. ndax mhm. gis nañ ni du bëreeg ñi nga xam te ne peut-être ay yeneen booy quoi ñu bari chance bi nga am mooy da nga ñëw. Mhm. macha allah moom moo joué sa combat ak Auguste mën nga see mooy loolu moom xam nga ñun moom amuñu chance kon li doon wax en général ñi ñuy bëreel yëpp ay mbëru mbapat la ñuy doon ay mbër yu néew combat mbër yoo xamante ne nit ñi dañ leen di moytu ñu jox ñu leen. Auguste champion d'Afrique la mën a bëre mhm. affaire yooyu bañ ñu boolee tamit même chose rek dañoo bëre bëre xale. parce que même gars yi loolu la ñuy wax nañu carrément kii mën na bëre mais dàqu bëre man samay kilifa mbokk mosuma bëreek nit xam naa ne fas li fa nekk duñ nax nit ku mënti ñëw boo amee combat dinañ ne la kii danger la dawal bëre bi xeexal ak moom bu ko may mu bëreeg moom xeexal ak moom wala kii nii defal lii mais mosuma bëreeg nit bañ ne ma moytul bëre bi waaw toujours dañ naan ma rek bul màmm bul def dara toogal say tànk fii yoog yaa ngi jàpp nit di jàpp gëmuñu ne kenn mën na laa jommal ci biir bëre parce que woon tànguñu noonu ci bëre mais pour nit jommal ñu nii nii nii nii ci biir bëre nii bëree ñu ba ñu kii loolu moom xaw na jafe parce que ñun ba ñu ñëwee faas ñu fa fekk ñooñu tey bu bëree doon bu bëree doon géej <laughs> ñoom xam naa ne ñoom ñooy océan Atlantique parce que ay Tapha Guèye numéro 2 ay Balla Diouf Djily mbay ñoom grand Mbaye Diouf ñoom Rock Mbalax ñooñu ñëpp yàlla dogal nañ ñu ñu jot a jàppanteeg ñoom te ñooñu bëree ci ñoom la jeexee bëree ci ñoom la jeexee xam nga moo tax moo tax daal ñun mënuñu mais nekkoon nañu ak ay nit yu mën. waaw te loolu tamit du avantage wu nañ ci lu bëree bari su ma nee sa combat ak Ablaye Ndiaye lu mu lay fàttali mu ne ko combat boo xam te ni ñu bëri dañ ci doon xalaatal. parce que doom champion la. Mhm. mu nekkoon te ne mbër lutte simple la day compétir bu baax a baax. Gris mu ñu wax ni combat boobu ñu bari dañ ne combat bi moom mooy premier combat am sa combat ak Ablaye Ndiaye. waaw waaw combat xale la woon. waaw parce que ñun ñaar ñëpp ñoo tolloon fii ñu nekk man ma amoon six combats xaw ma sept moom mu am trois mais moom it lu ñu dal dal ko muy nit ko am dafa tojoon ba bi ñëw. ñu waroon daje ñëpp naan ñaar ñi war nañu bëre mën nañ bëre parce que ñun moom noonu lañ mel ci làmb mooy ba Ablaye Ndiaye fële ñëpp dañ ne wuu kii moog Ablaye Ndiaye mooy combat bi même bu dee maa ko devancé woon ëpp kay combat damay ñëw bëre moom parce que moom la nit ñi bëre ba Reug Reug fële tamit dañ dañ ne kii moog Reug mooy combat bi dafa am ñoo xamante ne noonu la leen di yàlla di nattoo quoi. parce que am na ay mbër yu bëri yu fi ne yoo xamante ne jaar nañu ay yoon yu kii dem. bëreeg ay mbër yu ndaw bëreeg ay mbër yu ñu ëpp trop xam nga demee ñun amuñu sens boobu bu ñëwee toujours rek dañuy xool mbër yi gën a ñu ñu gën a wax ne dañoo mën a bëre te dañuy dem ñu boole ñu waaw Ablaye Ndiaye ba ñu boolee tamit noonu la mu nekkoon combat bu am coow boo xamante ne mën naa ne man sax bokkoon na am moom sama engagement personnel la woon parce que foo tourné woon da nga ko doon dégg te man loolu laa gëm ko combat bu ñëpp naan lii la ma ñëw jël ko. combat bu jour bañ koy njëkk a wax maa ngi waatu giri ne kii yaa ko raw waroo leen bëri affaire yooyu ma ne ko man de moom bëgg naa mu ne ma ah, kon baax na yaa xam jëlal sa bopp. ndax ah, parce que bëggul woon loolu quoi bëggoon na beneen affaire yooyu xamoon ne combat boobu dafa laaj ay effort jour boobu loolu la ma wax carrément man ma ne waa baax na xam nga. Mhm. noonu noonu noonu lañ ko jëlee. mu nekkoon combat boo xamante ne man leeroon na ma maa ngi doon gis waa ji mais ma xam ne kii daal mënumaa daan gis naa li muy def mais man sama gëm-gëm donte mënoon na ma daan parce que fii ñëpp mën nañ daan ko ku ne mën nga daan sa morom mais man dama doon ko xool ma ne kii kii man daal li muy def nii bu ñu bëree man maa koy daan far yàlla ñëw suturaal ñu si. nga daan Ablaye Ndiaye. Mhm. gën a tàq tegle. Mhm. gars yi naan kii arrêté gri mhm. ba nga pare si Ablaye Ndiaye kan nga jëlaat. Abdoulaye Ndiaye xanaa Pakala moo si topp. mooy combat boobu noonu seen komba boobu. Mhm. gars yi nag fii la ñuy xoolee ba xam mbër mi ñëw na. Mhm. wala bërekat bi. Mhm. Gris 2 nga ñëw. xaw dañ laa digal ne la nga koy puus. xaw mu lay puus Gris 2 mel ni tey nag moom booy yi daan bëreel <laughs> wala booy yi daan daan. ak Pakala du benn. sa combat ak Pakala pourquoi. benn la sax bëri bëri ñoo yamul rek. mais doon essayé. essayé mooy. Ah, ci Pakal la ñëpp xam nañu lutte simple lay compétir. non parce que ñu man bëri naa ak ay mbëru mba mbapat yu bëri boo seetee mbëru mbapat yi fi toj dix ans yi mujj yëpp. Mm-hmm. Mm. ñoom ñoom yëpp bëri naa ak ñoom aareen maa leen daan. Mm-hmm. ñoom ñëpp waaw ndax boo seetee tey mbëri simple yi Ablaye Ndiaye toj na ci ay anem xam nga Auguste toj na ci ay anem Pakal la toj na ci ay anem xam nga. ab Ablaye Ndiaye noonu ba Reug Reug ñëw xam nga te ñoo ñëpp bëri nañu arène kon man problème mbapat du woon problème bi am na combat boobu mën naa ci gis na yàkkamte am na ci parce que man li ma doon xalaat mooy kii du ma bëree moom sax muy yàgg parce que maa ko ëpp doole bu bëree day daanu moom it mu nànd loolu indi benn stratégie te puus bi <coughs> dernière ñaari puus yi rek laa ko puus mu génn mm. te boobu jàppoon nañ ne dañuy compétir fekk ne làmb du compétition làmb da nga war a satisfaire amateurs yi ak ñiy seetaan parce que tey bu doon ci tubaab la ak foo xamante ne sport la boo amee ndam rek garaawul boo amee ndam rek garaawul yaa jël say trois points mais nag làmb du loolu amateurs yi dañ soxla loo xamante ne day yegg moo tax mais mais Pakala même bu ma ko puusul woon da doon génn yeneen ñaar erreur bi ma def mooy li ma ko jàpp puus ko mais bu ma continué woon di xeex ak moom topp ko day génnaat yeneen ñaari ma jël sama ndam mm. parce que xalaatul woon xalaat. xalaatul woon taxaw sama kanam xalaatuma woon song parce que dama doon siggi di xeexee nu ma neex pour bëgg mu song ma ma songoon dama koy njett mu jeex xam nga mais ma koy attaqué muy arrière ma koy attaqué muy arrière ba am trois avertissement arbitre bi taxaw ne ko dese ñaar boo ko génnaatee da kii man ma def sama xel loolu génnee ko ñaar mu jeex. mais erreur boobu nag laa def mooy waruma ko woon puus dama ko waroon topp rek di xeex ak moom day génn ma jël sama ndam parce que xalaatul woon rythme boobu ma ko tegoon di attaqué di ko attaqué attanatu ko woon mais erreur bi nag mooy dama ci puus ñaari yoon rek ñëpp profité ci <laughs> da da koo puus da koo puus da koo puus da koo puus. Mm, mais loolu expérience la pour ëllëg rek. da sonn la ñu wax mënatoo ko dara. non sonn loolu mënul nekk combat boobu loolu mënuma ci woon sonn. parce que INSEP laa ko préparé. deux mois laa def INSEP ñëw ba ma ñëwee amoon na rupture ci entraînement yi sax amoon naa yàqu-yàqu mais amul woon problème combat boobu ma wax dëgg yàlla moom mi ma doon jàppanteel sax xam na ne kii nii may jàppanteel tey jii kii mënuma koo daan parce que boo seetee man aw ma sax fu ma jàpp li ñu jot ñaari yoon lañ jàppante mooy jàpp sama ñaari ngemb yëpp man may def nii di di jàpp parce que ñoom séeréer yi ngemb yi ñii ngemb. benn doo mën a dugg wala booy dugg tamit loo jàpp da ngay sentir ne jàppoo day xotteeku day deñ moo tax catu kiwi saar bi rek laa doon téye di ko déglu pour mu bëre parce que moom moo jàppoon bu doon bëree day daanu parce que li mu doon def yëpp maa ngi koy bàyyi xel mais saa yu jàppante affaire yooyu mu jékki-jékki xam ne kii am na lu muy préparé day bàyyiwaat ñu xeex mu génn mais mais mooy loolu loolu expérience la rek pour ëllëg. donc loolu tey même bu amee même tey bu ma doon bëreeg mbër ba mu taxaw ci côté saako yi dinaa ko xëcc. Hmm, waaw pour bañ nit ñi wax quoi parce que nit ñi tamit li ñuy wax loolu dafa compter ci làmb. dafa compter ci làmb parce que te nit ku nekk tamit li nga bëgg gis rek ngay gis waaw. Hmm. ba rëg mën a rëg-rëg la <laughs> defet bi. bëru musul ñam defet. waaw peut daanu <laughs> mais waajoon nañ ko de mais bii moom bett nañu mais waajoon nañ ne moom un jour moom dinañ dinañ jooy ci làmb. mais dañuy ak parce que sa combat ak Reug dafa ñoroon àdduna. Mhm. ndax combat bi ñu bari dañ koo bëggoon am na sax ñuroon doon wax kii de waru koo jël. Mhm. ay moo raw Reug Reug am ñu naan mënoon naa jël feneen. Mhm. duñ naan rek làmb moom dafa toll benn moment boo xam te ne li gars yi bëgg. sa combat ak Reug li tax nga bëggoon ko lan moo taxoon nga jël combat bi te mënoon nga aw beneen yoon li gars yi di wax. waaw dañ ko topp ay at rek li ma dal ci Ablaye Ndiaye moom ma dal ci moom rek ñaan ñii dañu war a bëre ñaar dañu war a bëre ñaar ñii dañu war a bëre. promoteur bi ñëw fay si xaalis ñu ñu bëre noonu la loolu rek moo ñu dañu waroon bëre parce que du ay raw parce que champion la boo xamante ne da ngay xam ne kii champion la te champion pour nga nekk champion foog nga daan ay champion. waaw Reug Reug du mbër moo xamante ne mbëru fowukaay la tay bu ma ko daanoon dina am lu mu yokk ci man looloo tax ma jël ko pour bëre woon ak moom pour daan ko far nag moom mu am ndam waaw mais ko woon pour dara jëluñu ko woon pour kii parce que champion la ñu jàpp ne képp ku bëgg nekk champion da ngay daan champion ñu bon ak moom pour daan ko. yow sa combat ak sax gis nga après ba nga ba nga bala Reug Reug daanee Gris de bi dafa dem benn instant dafa naagu côté entraînement yi dafa beru mhm. àndu toog waa fas écurie am la yor mhm. comme benn gangam la yor mhm. di entraîner comprendre nga dematul écurie Fass sa combat ak Reug Reug mu dégg waaye wax lu nekk après lu nekk que ni Gris Gris de daanu na rek mais ñu bari ñu bari neen Gris moo daan boppam parce que côté entraînement yi waaw ah, loolu mën na nekk mais en tout cas combat boobu xam naa ne daal liñ ci daj liñ ci daj ak sacrifice yi ñu ci def mosuñu koo def ci combat waaw parce que combat boobu toog nañu ay weer yoo xamante ne toog lëlu te daan naa préparer combat yu mel noonu toll noonu te dañ ko doon combat aveuglement rek lañ ko doon préparer du ñu yàqal suñu dara mais combat boobu bàyyi toogoon nañu benn bërëb pour waaj ko préparer ko mais nag affaire yi nekkul foofu. bés bi ngay gën a fonk jour boobu ngay dégg ay wax yu négatif jour boobu ngay dégg ay wax lu la metti mais tamit da ngay comprendre analyse dafa am analyse dafa am tey du nit ku ma jege wala nit ku xam moo mën a ñëw taxaw wax loolu loolu mënul nekk ki mën mooy ki nga xamante ne dafa toog analyse ne Gris mi daal ni ma ko gisee nii wak nii wak nii xam nga xalaat sa xalaat mais tey ñi jege loolu duñ ko wax ñu jege duñ ko wax parce que ñi ma nekkaloo nag ñëpp xam nañ ne combat bi joxoon naa ko àq xamoon naa ne def naa ci sama xaalis def naa ci sama temps. mais li tax tey tegoo ko lañ ko teg. mais da nga da nga amul lëlu lan mooy lëlu écurie Fass kenn dëkku fa di du kër. mais comme yow par exemple comme Gris ñu ko daan gisee. di gis boobu kenn gisul kenn parce que combat bu année boobu man dong maa am combat. am nga régulier amul woon normal. xam nga père dafa gay tombeek biir koor tamit ñëw affaire yooyu mais foofu amul woon dara loo xamante ne rek changé nañ ko ci méthode benn méthode moo ci am muy regroupement te regroupement ba benn instant dama naan sax man damaa sob ba ma déggee ay wax dama naan man waane waane lu moo ma teg lii parce que bu mu ñëwee Patrice from hôtel arc en li ma njëkk wax mooy INSEP ngay dem fi nga demoon yow pakala fa ngay dellu INSEP def fa trois mois yoo plus de dix million lay nekk wala dara loolu la bëggoon man mën a xalaat ne loolu daal pour man yàq la te da ngay dem toog foofu xam nga doo am ku la waajal fii sa bopp ak affaire yooyu ma ne nag jël regroupement la ñuy fay foofu ñu jël coach fay ko si jël si appartement fayal si ay nit saal sama ay moroom lu mat huit personnes laa ñu fayal saal chaque mois vingt mille vingt mille ñëpp xam nga ñu regroupé wu fenn loolu moo gën. bu ko defee man donc duma ci bénéficier wu man ak samay moroom yëpp ñu bénéficier wu ci jël coach boo xamante ne professionnel la di ko fay chaque mois cinq cent mille dañ doon fay coach xam nga yooyu yëpp nga def ko <laughs> nga pare dégg ci da doon def lii da doon def laa moo tax des fois boo nga déggee dama naa man daal lii yëpp te loolu lu mu ci jublu woon ñun ñu fa nekkoon huit personne ak yooyu dama doon wax bu ñu entraîné deux mois ba ñuy taxaw dañuy wane ne nit ñi ñëpp écrit yëpp di taxawee naan ñun ñëpp xam nga cent pour cent nangam cent pour cent ñu nit ñu wane ne nous sommes ensemble ñun ñëpp a ngi nii affaire yooyu noonu. Mm-hmm. yooyu laa ci jublu woon pour ñu nekk benn bloc ñun ñëpp santé su suñu borom bopp mais affaire bi échec waaw mm-hmm. ah, xam nga loolu lépp da lay jox leçon ëllëg yow boo amee sa combat di nga dem waaj ko fa ne nànk ñëw def na nga doon def ñëw écrit bi comme noonu. Mm-hmm. parce que booy jéem lu baax leneen mën na la cee fekk ñeneen gisee ko neneen xam nga. ay nit tamit yu comprendre gisee ko neneen jàpp ne kii day jaay autoritaire wala dafa yëg boppam wala dafa laa fekk na yow wallaay union fait la force rek nga doon jéem a créer far loolu far loolu yëpp fekk la ci moo tax man dama naan moom waane ak seytaane moo tax li ma lu ma dégg rek maa ko teg sama bopp. parce que ah. loolu maa ko xalaat. ba ma ko waxee perte dafaa ngay woo ko ne ko man de Patrice daf may forcer pour ñu dem INSEP te man li ma xalaatoon mooy def regroupement. gars yi ñëw Petafa dafa na ma si wax nga lu am solo ooy li nga xalaat nii lu am solo la ba ma ko waxee kiir di tamit pare loolu la ma wax xam nga yow xalaat ci esprit de partage laa ci xalaat parce que man mënoon naa dem INSEP VIP laa fay dund toog taalal samay tànk di nga am état bi nga bëgg ñëw yeggale ko fii mais boobu bu ko defee yow kese lay doon. yow kese lay doon xaalis yu bëri dem te fii nii mbooloo mu bëri mën nañ ci bénéficier wu parce que maa ngi ko gisee ba giri di préparer euh, Balla Gaye même coach bi lañ jëloon dem kër Père Tafa Gaye mais ñun ñi fa nekkoon ñëpp dañ cee mujjee bénéficier wu ñëpp am doole ñëpp année boobu ku amoon ko combat ci ñun yaay daan force ndax regroupement boobu gis ngeen giri ba mu <laughs> demee stade mhm. bëri na minutes. Mhm. te sonnul sëggul jàppul ndigg jàppul dara jël ku gaañu fu ne teewul bëri 30 minutes sans sëgg te jour boobu mënoon na bëriwaat yeneen 30 xam nga ndax loolu si lool laa xalaatoon mu ne man tamit noonu laay def mais far nag mu échec combat bi am ay renvoi tey combat bi date bii la suba date bee la yóbbu ko après koor xam nga. après problème am ci. ba pare ñu musul neutre. Gris musul nootu Gris ni mu ni mu defee foofu noonu la mos di defee waaw Gris moom débrouille-toi moom loolu <laughs> ay mbiram la mais loolu loolu tamit dañ koy comprendre rek te loolu tamit exemple la rek boo xamante ne tey prochaine fois moom dina am lu bëri loo xamante ne dina ko ji kii dina ne kii jàppoon naa ne mën na gérer lépp daan na gérer boppam di am ay ndam di dem di dem mais nag il est pour tamit ma taxaw. organiser ko waaw parce que mënul dara parce que kenn xamul dara. Mhm. waaw fii moom ku xam dara rek. Mhm. ay kilifa ñoo la teg ci code. Mhm. nga ñëw esaat sa combat ak Reug Reug ñu gis Reug Reug gis Gris 2. ay na Gris bañ xamoon ak boobu du benn Gris gis nañ la sa combat da yàggatee. mais Gris mel ni fit bi nekku fa. gis ne Gris 2 man moom sama fit du dem man moom. ah non man moom man moom xam naa ne ku may jàpp gàllaate ku may naawal faneen ku may def leneen non non ba mu des jàkkaarloog nit di am dut mm-hmm. boo gisee na ma bëree rek laa daan bëree. Mm-hmm. maa attaqué maa njëkk dóor maa dox waaw man moom noonu laa mel loolu moom du buuse si man mën naa bañ a sentir sax sama bopp cent pour cent mais bu ma xoolee ki nga xamante ne mooy mbër mi may bëral dama naan kii maa ko mën waaw bu ma tiimee nit moom loolu moom yàlla da koy def ci man man bu ma jàkkaarloo nit rek dama koy xeeb ci sama xel. dama naan kii moom mënumaa mënumaa yëngal. waaw te loolu bu dekkee ci yow mooy yow man moom ci àdduna moom xam naa ne lu ne mën na maa dal waaw ba mu des ragal ak réew ñaari yooyu daal ñaari er yooyu xam naa ne moom duma ma mës a arrivé ci àdduna du ma mës a réew. te du ma mës a ragal tamit. Mm-hmm. yow uh, sa combat ak waaw bëre bëre dof bëre nu ma neex bëre noo xamante ne man ba ma koy seetaan moom dama naan lu ñàkk xolam la lu ma ci nit wax waaw laa war a wax avant may seetaan toog naa ay weer nag xooluma combat mais ba ma ko xoolee moom dama naan man gars yi luñ ma luñ liñ ma wax li ma jot a dégg sax dama koo xeeb. parce que man waroon naa dégg de plus parce fii moom wax dëgg yàlla defuma fi dara te man làmb moom li ma si souhaité mooy bañu maa daanu mais dama bëgg di bëre di xeex ba keroog ñu may daan mais keroog xeexuma bërewuma ba pare daanu moo tax combat la boo xamante ne moom lu ma ci dégg waaw laa war a wax. kon ñi lay wax dañ jàpp mystique ma sentiroo mystique bi. non loolu duma ko wax de loolu moom man mystique moom jamais de la vie ma wax ko en tout cas combat la boo xamante ne xam naa ne du woon sama jour waaw parce que dama naan ay gëwma mystique man fatiguement laa gëm dama naan man combat bu fa laa ko teg ba léegi bu ma toogee di waxtaan ak sama gars yi ba mu paasee ba paase man man lan laa gëm mooy déplacement yi ma doon def ci dernier jour yi moo ma sonnal ndax man ba ma duggee ci làmb ji laa sonn damay ñëw yor ndaa sax ñu ne ma wëral ñetti yoon géew bi sax benn yoon bi sax du mat. damay tourner bi géew bi rek mel ni mel ni ku yéeg ku yéeg din bay door a ñibbi si ni <laughs> di sa taag yi di mel ma ñëw toj dem sama yoon ki ma doon kiwal musique danaa ma eh, bu may jox benn affaire pour ma wër bi sax danaa ma eh ñetti ngay wër bu ma wëree benn yoon rek sànni ko ne ko eh kër xam nga mu nekk bis boo xamante ne yow doo sànni mais toujours tamit dama naan yey loolu yàgg na ma dal parce que contour Ablaye Ndiaye dem naa ba dernière semaine bi ma am ndigg bu méttee métti ma doon escouade xaw a glissé dama ndigg li metti ba mënuma woon dara ci stade bi yooyu gisee wër yu bari sax mënuma ko woon dama doon toog rek di itiré réew ak indi benn ay pompe yu may def sama ndigg li pour anesthésier ko jour boobu damay toog ne wuu tey jaaxle naa tey sax way combat bii moom nar na metti ci man de man mi am taxaw sax lu yàgg mënuma ko xam nga man ak Ablaye Ndiaye teewal ba ma demee ci géew ba damaa fàtte ne sax dara metti na ma. moo tax en général bu ma melee noonu ci làmb am na même man ak booy remarque toog naa feebar ko ba ci mercredi bi rek dañ na loon renvoyé combat bi bi nga xamante ne dimanche àjjuma laa war a bëre bi rek dañ na loon renvoyé combat ndax feebar munu woon dara daanu ma woon nelaw ba bët set ma doon toog nii teg glacière di si def. di si def sarbet di ko musooroo sama boot bi ba gëla ba kii bi euh, sarbet bi wow ndax sama yaram bi ni mu loon tàngee mais teewul ba jour combat ba jotee feebar naa ba si veille bi mais teewul jour combat ba ma dem ba ma yeewoo dafa mel ni dara musuma jot dama dem bëre ji mooy loolu moo tax man yooyu du ma ko xalaat man moom fatiguement fii ba ma may bàyyi bëre daal lu ma dal ci làmb damay jàpp na fatiguement la wala gaañu gaañu la mais du ko tamit. mais man loolu du ma ko gëm. Euh, beneen bi mooy que ni Gris ñu gis ni Fass mën nañu wax ni yaa fi mujjee ñëw. Mhm. mais da nga bokk ci espoir yi parce que Père Tafa Gueye ñoom ñu ko wax dañ naan am nañ ci moom yaakaar. Mhm. di nekk sa première défaite. ñu bari ne Gris dafa war a reculer waat li mu daan def. Mhm. defatu ko loolu noonu parfois boo koy dégg. lu def si yow. waaw leçon loolu rek li ma lay wax mooy analise xam nga li nit ñëpp dinañ wax ci mbedd mi mais sa kilifa tamit dinañ wax parce que damaa ngay lim ma war a wax ne ci loolu laa war a nekk wax na ma ko xam nga giri li ma wax ne ma foofu nga war a nekk wax na ma ko keneen ak keneen noonu ci kilifa yi nga xamante ne ñoom nga dénk sa bopp. Mm-hmm. di nga déglu ci mbedd mi li nit ñi di analyser nga bàyyi ko xel mm-hmm. mais say kilifa yi nga xam ñoo la gën a xam ñoom dinañ la wax mm-hmm. jóge nga ci lii c'est normal. mais nag nii nga war a def xam nga te ñun ci loolu nag lañ bëgg a nekk bali ci kanam ñu dem bëre ko parce que Tapha Gueye ba ma daanoo ko combat bi ba mu ñëwee ñu gisee li ma njëkk wax mooy xamal ne des na yeneen défaite ci kanam des na yeneen victoire tamit parce que carrière la waaw di nga daanuwaat di nga daanaat xam nga te loolu tamit boo seetee ba seet mooy dëgg parce que sport la rek da ngay bëree di dem xam nga tey mu neex su suba mu naqari waaye li ñuy ñaan nag mooy li fi jot a am dernière bi loolu gëj fi waaw te bañ ci jugee tamit yàlla dogal na amaat nañ ko mbaa mhm. kon li war rek mooy ñu relancer waat affaire yi continuer kon niñ ko tàmmee woon di def.